nga ñu tax a jug te bëgguñu ku ñuy nax ndax jamono ji doolu jamono joo xam ne may la jën jàngale lu ñuy nappee moo ko gën. may la jën jàngale ñu ñuy nappee moo ko gën ndaxte ne saa su ne ñi ànd ak ñu ñuy taxawal ay oto di dem ñu ñu jox ay paas aki i 1000 francs ki 2000 dafa doy ci dëkk bi. ñun nag ay jigéen lañu te buñ dee wax de développement dafa am lu ko wundu femme de développement lu ko waral mooy danga leen di former te ko amul formation yaakaar naa doo mën dara. te jigéen ñi dañ leen a war a former jigéen ñi dañ leen a war a jàppale ci financement yi jigéen ñi dañ leen a war a jàppale ci bara parce que fi ñu ne lu fi dox rek jigéen ko doxal te kaa wax la leen ndax état suy jox financement jigéen la ko jox du ko jox góor ndax dañoo jëkk a testé ci góor jox ko financement góor lekk ñu jël ko jox ko jigéen kon nag jigéen ñi ñooy jàmbaar kon yaakaar naa ne ñun ñi waratuñ ñoo nax yàgg na ñoo nax nag waaye ku ñu nax nag dalaa neex. ndax dañoo toll ci jamono joo xam ne ñëpp dañoo yeewu kon nag nañ jàppale jigéen ñi ci formation yi ak ci financement yi ñu mën a liggéey jëriñ seen askan jëriñ seen gox jëriñ seen réew. mbooloo mi fi tase maa ngi leen di gërëm bu baax di gërëm sa Saliou Diakhaté mii ndaxte lu ma woo rek man dinaa ci sawar di gërëm sama mbootaay gi nga xamante ni nag bu ma woote woon man dong teg fi samay saisi du ma gis kenn waaye saa yu ma wootee rek ñoom ñëppay taxaw te toog. jàppale ma bu baax nag. te bañ ko sosee ba léegi gisuma ci dara lu ma naqari ci ñoom ñun daal ñu ngi ci ginnaaw Serigne Saliou Diakhaté tey ba suba lu mu woote suba ba ngoon ñu ngi ci ginnaawam suñu koñ bii bu bu setee ak bale yeeg yëpp moom moo ko joxe ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñun daal ñu ngi ci kanamam ñu ngi ci ginnaawam fu mu taxaw suba ba ngoon ñu ngi ci ginnaawam ñu ci kanamam. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sant di jiital ci nuyoo bi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou di ñaan yàlla suñu borom. bàyyi ko fi ba mu yeggalee yéene Sëriñ Tuubaa yëpp di tudd délégation bi ma àndal ñëw ci yéen sëriñ Minikaar ma ànd moom ci délégation bi ak sëñ Mohamed Silla ak sëriñ Xaasim Mbàkke ñuy ñoo xamante ni dañoo jóg takku ànd ngir jàppale président Macky Sall fii ci Touba ndax président Macky Sall dafa am lu mu liggéeyal Serigne Touba loo xamante ni war naa gën leer na nit ñi sax waaye war na leen a gën a leer ndax lépp lu mu yëkkati rek balaa xalaat fenn Touba lay gën a xalaat. lépp lu muy def Touba la ci njëkke ndax boo xoolee autoroute ila autoroute autoroute autoroute bii mu def ila Touba bii mu defal sëñ Touba jugee Dakar ba tuuba loolu moo ko defal Cheikh Ahmad Bamba nga gis ni li mu liggéey fii ci tuuba muy hôpital bi nga xam ni bokk na ci hôpital bi nga xam ni moo gën ci Afrique wala gis yu mel ni moom bariwul nga gis trente yi nga xam ne ubbi na ko yëpp mu yaatu yaatal trente yi ba trente yëpp yaatu. hôpitalu Jannatul Maxwa li nga gis li yéen a juree jam fa def def fa lu toll ci sept milliards. arrondissement bi ñëpp xam nañ lim def ci Touba lim lim def ci Touba fii président Macky kon moom yéene mooy liggéeyal sëñ Touba. kon ñun waa Touba war nañoo jóg taxaw ànd ak président Macky Sall opposition bi nag li ma ci wax tuuti rek la dama ci wax tuuti rek lu gàtt muy opposition bi nga xam ne ñoo fi nekk di wax wax joo xamante ni dara amu ci ndax dafa am kilifa gu mag muy Obama jóge ba États-Unis ñëw jàkkaarloog président Macky Sall am lu mu doon sàkku ci moom ci li nit ñi vëkkale ci li nit ñi wax naan. président Macky sàll boroom ñaari tur yi dafa xalaat pour daganal ko Sénégal loolu wax jooju ko ko gis xam ne wax jooju doon doonul dëkk ndax ku jàkkaarloog Barack Obama mu wàcc Sénégal réewum États-Unis ni mu toll adduna bépp di ko wër adduna bépp di ko neexal adduna bépp am ci moom yéene ñu yor seen alal yor seenum koom yor seen lépp nga mën a jàkkaarloog moom ni ko Sénégal parewut pour def loolu la feeg maa ngi fi Sénégal loolu def mu sa am ki wax loolu loolu war naa dal xelu askan wi war naa dal xelu ñëpp na dal xelu askan wi kon loolu ñu wax noonu du mi sa am du mi sa du am tey te du am suba la fekk maa ngi Sénégal gi lu fi mi sa am loolu président Macky Sall ko wax ba ñëpp dégg kon wax jooju nañ bàyyi di ko wax ndax wax jooju amul li ci topp mooy président Macky Sall dafa am ngërëmul Serigne Saliou Mbacké ndax Serigne Saliou Mbacké xamal na ko ni ko lépp ëllëg Sénégal ëllëg sa loxo bi lay baaxee te loolu dafa doon loo xamante ni man témoignage laa ci Serigne Mountakha Mbacké mii li tax mu naan li ma koy yéene diisuma ko kenn Serigne Touba laa koy diis xam na la bàyyam yi tedd ya sequ na moom muy président Macky la bàyyam yi teddee sequ na président Macky Sall Serigne Mountakha xam na ko moo tax man li ma koy yéene Serigne Touba laa koy diis kon ñun ñu fas yéenee jug jàppale jigéen ñi. jàppale leen ci turu président Macky Sall ndax président Macky Sall dafa yàgg a jàppale Touba te fi bëgg mu yegg fa dëgg mënu faa yegg ndax jigéeni Touba ñëpp xam nañ ni bu vote jotee ñoom ñooy vote moo tax tey jii ma ñëw seet si leen ngir sàkku ngeen jàppale président Macky Sall wooteel ko ci élection législative yi ñu jëm dinaa leen yónni buñ cee bés buñ ca yeggee maa ne dana leen utal kaar yéen ñëpp ngeen dugg ci mobilisé wu dem woote jël président Macky Sall loolu mooy li ma leen di dénk te loolu mooy li ma bëgg maa ngi leen di sant di leen gërëm tey ma ñëw fi indil leen benn enveloppe bu toll ci téeméeri junni ngir ngeen leblante ko seen biir ngir wëlbati ko ngir ma jëriñ leen dara wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.